le euh, grand plateau di jaajëfal Kati 360 Mohamed xam naa après dinañ ñëwaat ci Kati 360 wax également moom itamit lu lu muy def mais euh, di rappeler rek ne que tey euh, dañ fi dalal kii di oustaz Souleymane Ba mais également Serigne Sam di leen jaajëfal bu baax a baax première partie bi amoon na solo mais deuxième partie bi moom mooy dàkk di rappeler juste ne que kii di Moussa Diouf spécialiste en location écran plat moom dafa may équipe technique bi 100 000 francs jaarale ko ci Babacar Sow xam naa jaajëfal bu baax a baax waa équipe technique bi kontaan nañ euh, sant nañ ma nag ma nuyul leen euh, Bougane Gueye Dany nee nañ <laughs> équipe technique bi ñu ngi koy def coucou alors Mouhamed dama lay jox rek ñu dellu waat ci euh, ci plateau bi ci waxtaan bi également ne ne ba ci football sax day am mi-temps mhm. xam nga lu waral mi-temps fi entraîneur mënul woon egg ca jour pour wax ak moom da koy woo mu ñëw ni ko erreur bii nga def ak erreur bi mais bi nu demee mi temps dem naa ci sëriñ bi. Mhm. ni ko maal euh, bien am na waaye très bien yow ak Samb. Mhm. léegi nag dañuy dem euh, euh, deuxième mi-temps. dëgg la deuxième mi bi benn question lay doon bi ci des nag jug taxaw lay àndal sànq danga nga wax lu yéeme. Mhm. maa ngi nuyu sama sama sama lépp Mbaye Diop Jamil bu maam Mansour si Jamil Ablaye Ndiaye ca yéen maa ngi leen di ziar wax sànq ni maam Seydil Hadji maalik dafa dugg Tiwaawan. bi mu duggee Tiwaawan dafa fekk ñuy naan sàngara. ñu sol ay caay ak ay faaru mbaam. mu yéem ma lool te alxaaji Malick juddoo gaaya gaaya ak Tiwaawan distance bi sori na lool ndax yàgg naa ko dem quatre cent soixante-dix kilomètres te jamono joojo oto amul wara mu mën a gaawee noonu lu alxaaji Malick jugee gaaya di dox di dox ba dugg Tiwaawan te du titre foncier lu ko fa dugal ñu doog a gàmm tabaarakallaahu Muhammad xam nga histoire ni ñu ko bindee rek noonu nga koy jàngee xam nga Cheikhul Xaaju bi muy ñëw Tiwaawan xam nga boo déggee ceddo mooy ñi nga xamante ni ay buur lañ doon nekk ak ay laman ak ñi nga xamante ni ñoom ñoom occupé teritoire bi du tee nag ci biir ñoom dinañ am nit ñu baax ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ñi ngi dogal seen ngor waaye du tee itam am na ñoo xamante ni ñooy jëfandikoo leneen la boo déggee ñu naan defar ñu yàqu la ñuy defar waaye Maodo bi mu ñëw Tiwaawan dëkk bi yëpp nekkul ay ceddo amoon na ay ceddo yu fa nekk waaye amoon na ñu baax ñu fa nekk tabaarakallaahu ñi nga xamante nag ñoo ñoo toppoon seen bakkan ñoo nekkoon ci tëgg maag fecc maag naan sàngara ma tabaarakallaahu kon loolu jara bàyyi xel lu mat a leeral la ndax euh, ku ne am na ay maam maam ju ne am na ay sët ndax boo tuddee maam ci histoire am na ku ci mën a gis boppam fekk tabaarakallaahu li ñuy wax mooy li histoire nettali loolu tubaab ñoo ko bind ci référence ñi ceddo yi ñee nekkoon Tiwaawan occupé fa la majorité avancée du Xaaj Maalik tabaarakallaahu li indi Maodo Tiwaawan Maamet Tiwaawan affectation moo fa indi Maodo affectation bi du gouverneur du président affectation bi yàlla mi bind Seydul Xaaj Maalik di koy liggéeyloo ci toolam moo ko affecté benn bureau bu ñuy wax Tiwaawan mu doon fa def si lan góor gi Jibril Gueye ak góor gi Jibril Toog ñoo fa nekkoon di ay commerçant yu mag bëggoon diine bëgg ku leen dimbali ci xam-xam amoon nañ benn borom amoon na ay boroom xam-xam yu ne Tiwaawan avant Maodo amoon na ay imam yu fa nekkoon avant Maodo waaye bi Maodo ñëwee fekk leen fa jëflanteeg ñoom ñoom ñëpp dañu wëlbati ku ne ah ay la yéwén ñoo fi nekkoon bi waa ji ñëwagul de waaye bi Maodo ñëwee nag mooy seriñu sëriñ kon sëriñ sa fa nekkoon góor ga doon tafsir Tiwaawan daan tafsir ba yàgg mu ni cëy baat bu wax ni cëy bu ngeen gisoon sama njool ma cëy bi ngeen gisoon sama waaj ñu ni ko waaj mooy kan mu ni Seydou maali kon moom amoon na honnêteté intellectuelle que ni yi man mën li mu koy mën mën am na ko ko dàq ñooñu na ñoo sàkku ci Maodo pour mu ñëwoon Tiwaawan jàngale si Tiwaawan di tafsir alxuraan kon loolu moom mooy li indi Tiwaawan Maodo biir Tiwaawan kon jàngale ko fi indi woon ak tafsir alxuraan yàlla nag bu nammee mbir ci aalamul xikma ak li muy def ci aalamul machia aalamul machia mooy yàlla da koy def ci coobareem amul concertation aalamul xikma da koy wutal scénario mel ni film booy monté kii bu defee lii kii def lii kii lii lii mooy nekk résultat bi final waaye machi atu mooy ci misaal bi muy bind Souleymane Ba bind na ko mu nekk waaju ñuul ñaaw yàlla waxu ci kenn loolu mooy machi atu xeg ma nag mooy plateau bi ni lañ koy toogee ni lañ koy defee yàlla ci machi ci machi atu mooy Maodo Tiwaawan la war a nekk jàngalekat waaye bi xigmatin faaw ñoom alaaji Jibril Guèye ñoom Jibril toop waxante ni dañoo bëgg Maodo ñëw Tiwaawan pour mu tafsir alquran looloo dëkkloo Maodo Tiwaawan mm-hmm. yaa Muhammad mm-hmm. loolu mooy li ñuy joxe incha allahu ci diggante Maodo li ko indi Tiwaawan sa sa sëriñ nee na mu ngi lay seetaan maam alxaaji Abdoul Aziz bu sëriñ Mbay si Abdou. ah sama sëriñ maa ngi koy ziar moo la jiitu fii ci plateau bi. boobu ah. ñoom ne nañ ci kaw. mu dawal oto ba si ci bunt bi ni ma fan la ñuy defee grand plateau. spécial maam Seydil Xaaji Malick. Ah. ku xool léegi sama esthétique di ko gis. Ah. ma ko fii lañ koy defee Babacar du yaa ngi fi mu dugg ba ci biir fii ñaan ni na leen leeru maam Seydil Hadji Malick gunge yàlla na leen leeru sama maam Cheikh Ahmadou Bamba euh, Xaadimu Rasul gunge ndax ñoom ñaar ñëpp sama ay maam lañu def fi ñaan daal di génnaat léegi nag danoo war a gàmm montre bi ma takk moo ma ko jox ah, ah. tabarakallahu macha allah allah tabarakallah yaa képp kuy taalibe Cheikh ndax euh, képp koo xamante ne rek gis nga ni ñu toog rek rafetlu nañu tey sa teewaay rafetlu luñ fi waxtaanee man nag euh, laaj bi may laaj mooy euh, bëgg naa nga wax ñu ci mam Alaaji Malick Euh, Seydi Alhaji Malick radiyallahu anhu diggante moom ak njabootam li ko dalee taawam bii di Sidi Ahmed nga xamante ne balaa mu ko joxe ca guerre ba waxtaan nañu tamit diggante moom ak sëñ Babacar si sama waa ji noonu ma koy waxee radiyallahu anhu moom i tamit euh, jaar ci sëñ si euh, sëñ sëñ Moustapha si almaktum wàcc ba ci caat ngi nga xam ne ñu ngi koy jooy ba tey noppee gu ñu nga wax ñu ñoom seen relation ak ñooñu rawatina nag ñaari taawam yi ñaari doomam yu góor yi sëñ Sidi Ahmed ak sëñ Babacar Sy ndax nitu diine bu toll ne euh, Seydi Alhaji Malick euh, radiyallahu anhu nga am ñaar ñi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo tollee ni leer ndax moo ko waxoon sëñ Babacar Sy bu ma juumul nekkoo génnal ndax ñaari kuy duñu bokk man na waaw nga bëggoon ma bëggoon rek nga leeralal ñu wax na ñoom seen relation ah, bu baax a baax laaj nga lu am solo ñoom ñaar soxna Faama sëñ Babacar ak Cheikh maam Sidi Ahmad ñoom ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. ma wax la sànq ni. Hmm. addiyee ju barkeel ak ñaan gu nangu. addiyee ji maam Roqee Njaay joxoon Seydou Hadj Malick. ñu hmm. ko dama bëgg nga ñaanal ma ku mën a jàng téere yi. loolu ñaan nga ko Maodo ñaanal moo ko indil ñaar ñii. ñaar ñooñu nag mënuñoo bokk planète bi. kan ak kan. maam Sidi Ahmad. ak Serigne Babacar Sy. radiyallahu anhu. wax naa ne. Mhm. Maodo yi li ko yàlla may ci njabootam. Mhm. moom la yàlla mayoon Seydouna Muhammad ci ay saabaam. Ah. Maodo dani Seydouna Muhammad saabaam yi. wa humu nujuumu li maqtadin bi samaa'ihim. Saam damay tontu damay tontu damay tontu. من جلال Musa Dewi Sama sunu jàmbaar ji ne wa humun nujum li muqtadiin bi samaa'in جاء منهم جلاء الظلام درود جاء من جلاء بلا بدر أول وختام بسائد وخاتم خاتم الأنبياء ممنون عليه ربي xam nga Mohamed Mohamed bàyyi leen njàkk Mohamed Maodo njool faama dane njool màkka saabaam yi waaw ñooy biddiw yi nga xam ni ku bëgg a xam asamaan sa nu muy leere xoolal saaba yi hmm. Maodo mhm. doomam yi ñooy biddiw yi nga xam ni ku bëgg a xam asamaan bii di Maodo xoolal ñooñu hmm. maam Seydi Ahmed si radiyallahu anhu fatxu bi kashfu bi da ko teel a jege bi muy xàmmee xam na fan la wilaayaam tool bi xam xàmmee xam na ni lu nekk xalifa Seydul Xaaji Maalik ci dundam daan na waxanteeg sëñ Babacar radiyallahu anhu naa xool ko ma nga nee di ñëw ndax sëñ Babacar amul woon taxawaay lool daan ni ko xool ko maay magam waaye moom mooy xalifa sama baay ci ginnaaw daan na waxante moom Seyd Seyd Seydi Ahmad ci mhm. naan ah góor gee di ñëw ngeen gis ko ci biir gone yi maay magam waaye sama baay Seydul Xaaji Maalik bis ba mu fay joge ca talaataam jooju góor gii mooy nekk kalifa Seydi Hadji Malick moo tax Serigne Babacar Sy yàlla moo tax il faut comprendre gis nga yàlla nitu yàlla bu xasee xam li yàlla na mu ci njabootam da koy teel a nangu wala moo tax teel naa xam ni maam Seydi Ahmad du fekkee bu Seydi Hadji Malick di génn àdduna xam na ni itam ba muy faatu du faatoo Sénégal Hmm. moo tax bi ñuy jëlee taalibe Maodo yi bëgg leen a yóbbu a ni déedéet ay doomi jàmbur joxu ñu ma leen woon pour ñu nekk soldaar du sama doom bi ma jur laa def ci moom li ma def ci moom jox leen ko ndax fa ko yàlla jële xam naa ko mu jox ko ko sëñ Babacar nekk fi di boroom xam-xam boo xam ni xam-xamam daan na toog ba yàgg moom sëñ Babacar mu ne man sama xam-xam damay laaj ba léegi ndax xàmmewuma ci diggante ñaari xam-xam yii li ma nit jàngal ak li ma sama baay jàngal ak li ma yàlla jàngal ba léegi day duggante. Hmm. am na saa nga taal sa téléphone message whatsapp beeg message yi dàqante ci biir. Hmm. doo xam ku la yónni faaw nga remonté moom da daan toog yàgg muy xool naan message bi xaw ma ndax ci sama baay la jóge wala ci sama tijaan la jóge directement wala min xibali rabbi la jóge sama borom subhanahu wa taala. moom xalifa. góor gu ragal yàlla. xam nga wax naa la ni Mouhamed. Hmm. ki gën a mbaa ba daara mooy ki jàng ba jeexal téere. mooy. ki jàng ba jeexal téere yi moo gën a nilaar ci école bi xam nga lu waral lool. Hmm. ndax nitoo ko jàngal. nilaar la bu la nit jàngalee li nga xam bariwul hmm. waaye bu la yàlla jàngalee li nga xam day bëri sëñ Babacar si école yàlla la génne. waaye école boobu ku doon recteur di université bi yor ko mooy bàyyam Seydou Hadj Malick maa ngi lay wax benn affaire gis nga université virtuelle Seydou Hadj Malick moo ko njëkk doxal ci Sénégal ci àdduna. kon Maodo amoon na amoon na daara. Maodo amoon na daara yamuma daara bii mais virtuel laa wax en distance. oustaz waxaat ko Maodo ndax amoon na daara. Maodo amoon na daara amoon na université en même temps mooy recteur ba en même temps mooy intendant ba en même temps mooy professeur ba en même temps moom l'université en personne en miniature s'appelle Seydi Hadji Malick. a inal ah Sam yow dama bëgg appareil ci dix minutes yoo xam ne da ngay wéy Serigne Babacar. Ah. saa maa ngi ñëw damay tontu rek laaj bi. Eh, ah. Eh, ah. Eh, ah ah. wayaw man. ak lan. waawaay. jàmbaar ji borom gaay ak ci waawan borom gañ nag nañ ñu bàyyi Serigne Babacar Sy gi ci bone carré beeg sacré yàlla beeg manto beeg listiqaam ak lion yi borom ci dégg dell ragg ragg gasar na ñëpp jug taxaw sa kaw nu màggal Maodo wayaw tadrisihi sam da ngaa bëgg ma wax ko benn benn bala may toog nga ne wayaw man wayaw man xam nga affaire bi commencé gul waaye dañ koy anticiper wayaw man yayayaay wayaw man sëñ Babacar si ne wayaw man Alaaji Mansour si maa ni nee na Alaaji Mansour nee na wayaw man yéen saa yi taraaw di nga gis kan li tadrisihi muy jàngale lépp luy xam-xam wayaw man yéen saa yi li waxsin muy waaraate wahdiyil umam ak gindi jaamu yàlla yi Seydil Maalik Si waaw wa naadiratil waqt nee amul woon jot nee na amul kenn kuñ ko mën a tëkkaleel saam damay tontu laaj bi jëm ci sëñ Babacar ñëwaat ci góor gi saam tegal soo loxo tegal soo ci alaaji Mansour damay tontu laaj bi sëñ Babacar bi saam maa ngi ñëw saam damay tontu laaj bi sëñ Babacar ñu jàkkaarloo aha aha Maodo Ndiaye Mohamed dama ne la université virtuelle université virtuelle Seydou Hadj Malick xam nga moo doon élève ba mooy sëñ si xam nga fan la nekkoon. bi mu ne ko demal Tëngéej. ndax xam nga yenn saa nga xool connexion bi xam ni fii day sori. wala fii day brouillé. mais porté bi nga xam ni moom la connexion bi tolloon moo doon natt na connect ba mu tolloog Tëngéej mu ne ko sëñ Babacar taxawal Tëngéej. mu koy yónnee kuur yi. sëñ Babacar di recevoir di di di récepté di accusé muy récepté ba yàgg sëñ Babacar yëg na affaire yi dugg na mu ne toog naa man sëñ Babacar si ba yàgg gis délégation. romb man sëñ Babacar Sy toog borom ndaag la borom listiqaama borom bone carré bi du ko dëngal du ko jàngal du ko wengal fi mu ko tegoon daaw fi la koy teg ren déwén boo ñëw fekkal ko fa sëñ Babacar toog nii borom joxoñ ba nee naa gars yi buñ la laajee sëñ Babacar tax mu joxoñ ba dani woon ni loxo bi toog ci tiwaawan ni nii waqul li man yëf tey hidaayata ñëwal ci mbay waqul man li man yet la fi taqwa ñëwal ci mbay waqul li man yet la fi wusula ñëwal ci mbay waqul li man yet la hidaaya ñëwal ci mbay waqul li man yet bul maarifata ñëwal ci mbay mbay yaa ngi nii ni xasar sëñ Babacar si sëñ Babacar ah. Souley juróomi minute. cinq minutes ci sëñ Babacar Sy. ko wecceeg ku dul soppeem lool waxit la nu gën. billaahi Cheikh Sidi Abou Bakar. mag naa ngi nii laaj leen ko. Sidi Abou Bakar yaay borom leer خيني في معرفتي وفي تقوى ذاك العالم ذاك التقي ذاك النقي ذاك الزاهد ذاك المعرفة هو عين المعرفة هو ابن لسير الحاج مالك هو الخليفة لمالك وهو الخليفة لأحمد التجاني وهو الخليفة لرسول الله حب الخاف خيني من بين المشرقين برم جمنا غيدا مشرقا يا نجن يا للمندان سيد للولو كان ما في جنة بقي سرين بابا كرشي سرين بابا كريا ننقرمنا لا دادا شيخ قرمنا دادا maami amira daan nga xelelen loolo nene yow kuy bañ fii ma way mbay daan nga génnal réew mi demal ca biti yow mbaa nga soobu ci géej gi tasax te jël mboolaal mu ni ba ma mu ni ba ma yaay boroom leer yee abubakare daan nga xelelen loolo kii mooy kutubul xaafi xayni بين المشرق والمغرب آل فراش بنكوك سو دلنجه دينا دوركين دار دار دوركين دار دار كسين قلبك سين بابك لخدك ونمك دوركين دار دار يسألنا الله ربي الله ya seen TV lay wooye daanati nga daram dal la ku si a loxo ca kaw ma màggal góor way la burkin daram dal la ana soppay sëñ Babacar jàmbatul du xasti du xasti du gaaral la ah, lu ko way sëñ Babacar Si maami Kala Mbaye yaay maami Kala Mbaye yaay maami Kala Mbaye welem yaay maami Kala Mbaye waawalaay waaw waaw waaw waaw wallaay nar nar la ana sof fay sif la bakkan loxoy gëy yor ci loxo xayru xalqu laa yakon waaw jox ko bay seede ci waaw mooy borom ci waawan waa loo lool daana ci nga bur gi nar nar la bur gi nar nar la ci julli na te julli na leer ga julli na waaw ga julli na soba mbay nekk yaa astul la faato ca la faato dundal nga diine gi ana soppi sëñ Babacar eh, Seydi Aboubacar maa nga xam ku mel ni ki mbay waa ju mel ni mbay du fi am dootu fi am dootu fi am Seydi Aboubacar Si radiyallahu taala fa min al buxuur ixtart ah Oustaz Sule wuyul wuyul fa mi ne baxral kaamili ki wax loolu kan la Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Malick ana ko soppe daa baax Malick loo ko ci kaw nga ne lan fa min al buur ixtartu xoolal sëñ Babacar Si la rakam ji jàkkaar lool daa baax Malick borom 40 ans 6 mois zéro faute bàyyi sëñ Bay Si Abdou nee na magam ji fa min al buur ixtartu xoolal baxru mooy façon poésie liñ koy woyee tawil madid basid وعلومها البيان والمعاني بوكلك شعر وللشعر أوذان فحمدا لمن ما علم الشعر أحمدا عليه سلام أقول مدامان سرمدا أيا وارع الميضان بلغ سلامتي صلاتي عروض البدر سرك أحمدا الأذنة الأشجار والحلق والسرى مع الآل والقافين آثار أحمدا أرتب ترتيبا دوائر خفشلق أبعرها كنت ائتلاف لمن أدى أتل مردا وفر وافسد مكملة مهذجة رجدة رملة سرعا إلى اليدا وساري خفيفا إلى الإله مضارعا وإن وسط خاف سكونا فسميه بمفروق وتدي لا تريد بالهدى سيد عبد العزيز دباخني ومن البحور يا رسول الله شيخ سيد الحاج عبد العزيز مالك ميغي ويسرين بابكر فمن البحور اخترت maam daa baax nee na ci biir baxru way maa ngi tànn kan lan ngay tànn saa. bi kamaali fii. madhi shaykhin kaamil maa ngi tànn baxru bu ñu wax alkaamilu kan ngay ta kan ngay tagg mu ni sang bu tedd bi shaykhun tabaxara nee na sëriñ la boo xam ni géeju na min buxuuril mawaayibi nee lépp luy may yàlla sëñ Babacar géej la ci la duniyatin nee na xam yoo xam ni yàlla koy may wa maarifi ak ay xeetu xam yoo xamante ni bi wa fadaili eh, ak ay ngëneelu yàlla y joxe baxru shariat nee na géeju ba sharia mooy sëñ Babacar wal xaqiqat nee na géeju xaqiqa mooy sëñ Babacar nee na moom mooy géej ga mooy gaal ga. nee na mooy kii dawal gaal ga. fii bax fii qaari baxrin hayli. xóot xóot sëñ Babacar Faye. borom daara ji nee na. Eh, borom ba borom daara ji borom limousine bi borom saamam nee na borom ma dikkal ma dem maa ngi sëñ Abib si ne lu mu wax saam. wa kulli man yabtaqi shahwal humaami. nee na eh ku bëgg a daf sama góor gi tax laa jël péage bi doo ko daf na góor gi romb na ba noppi. wa kulli man yabtaqi shahwal humaami. nee na ki bëgg a toppandoo sëñ Babacar tax mu jël péage romb na la. wa kulli man yabtaqi shahwal humaami. nee na ku négocier jéem a jaar lefu sëñ Babacar doo ko am saaf. nee na yaa nee na yaa fekk jant bi mu nekk ca kaw nga jël biddiw naan moo tolloog moom. nee na sëriñ la boo xam ne gindi naa. nee na gër gindi na gindeeku na. nee na eh gindi na gindeeku na ay mbooloo. nee eh ku réer boo ñëwee sëñ Babacar mu gindi la ku ñàkk boo ñëwee sëñ Babacar mu jox la. kuy jàng booy suba sëriñ kat sax amal kullu. nee eh wax na dëgg li mu wax dëgg la. nee na amul sikki sàkk amul sikki sàkk ni sëñ Babacar mooy waay. muridaatun kësal jaaw nee na yàlla moom moo ko may ay jagle ak daraja tanfailul kainaat nee na eh, nekk mi ndeef yëpp lil walima an nee na ñoom yëpp ak yonent yi bi isni xaaliqina loolu nag mi ngi ko am ci ndigalu yàlla xaqan kama faaw loolu moom moo am tale saanal xilaafata nee na ñoo ngan na xilaafa gi naalal wirasata am na doon gi mu doon baayam daawa dalalata fay na lépp luy réer amman kaana yaxsha nee na képp ku ñëw sëñ Babacar gindeeku. sëñ Babacar si Maalik. Ah. sama sëriñ ba ne këpp samaati. nee na eh, mooy xuntu bi nga xam ne mooy ak tabe. bal kanzul hidaayati. nee na fi nekk mooy xuntu gindeeku. bal awnul bariyati. li fi nekk sëñ Babacar mooy dimbali jaam. min mardaati mawla. nee na eh sëñ Babacar ku mu jàpp yàlla bëgg la ku mu nga egg si yàlla. borom daara mooy borom jikko yu tey fa bàyyi. et eh, li fi nekk sans bàyyi sëñ Babacar mooy borom ngëneel yi. bal xul ma naay. li fi nekk mooy sans Babacar sans bàyyi sëñ Babacar boo ñëwee dara jox ay naan yu ne. bal bal taaba mar aawoo. waaye nee na bal li fi nekk taaba tey na mar aahu sàmmuwaayam max na man xaawu jubluwaayam boo bëggee baax bëgg egg bëgg a jag léegi mu gaaw rak tak cat cat demal ci sëñ Babacar. yaa yaa dëkk Ndar si yàlla jàll ne ay daalam وجدت سلم شباككم وجدت سلم شباككم وجدت سلم شباككم ka bil am daahima papa yayo dan sa jiga yagi tete si fiti modi mbar remi ko jar min al basiti wa madidin kamilin wagi wa wafirin aywa bagunyu tama wadi bumuy kaman jahate bumuy nyada bumuy aywa bumuy gitare bumuy barfa xiinal te bul ku ci sopp sëñ Babacar baleen junjung yee en way adi Mustafa ila wadi Mustafa ila wadi Mustafa ila ay wa basiita ngi rek yow mi de ci bat ak safar atiqa ngi innahu moom rek mooy may ki ko daane day day daane day day daane waji kii rek moo mata far far leen ci mbay ku ci far ayu seydi jamil far leen ci mbay ku ci far ayu seydi jamil far leen ci mbay ku ci far doo akrim bihi innahu haqqan la xayr wa zarbur yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg buur yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg buur yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg buur yàlla loo xamu ni kenn amu ko fa balligil xarna cheikhi way def ni ko magal cheikh sam nga ne lu góor gi wax mu ne fa balligil xarna cheikhi kullama amala xolal dabax ne sang bi sama soppe bi sama xarit bi la baax Malick mooy borom baat bu neex ba xam nga lu mu daan wax xam nga mooy kan xam nga lu mu daan wax saam xam nga lu mu daan wax xam nga lu mu daan wax xayrul madaaixi ma fi sayyidil bashari yusaaru kal jawhari mawdubi wa durari dégg nga wax li mu doon wax waaw li annahu man abdaahu xaaliquna wasir jumlati mawjudi min aswari billahi fastajlil fikra fi awsaafihi taradan كيما تفوز من الأمداح بالدرر بالله محمد آه. أحمد الأكوان خاطبة نال الأوان صحيح الوعظ والخبر إمام آدم أن يزيار حبيبي قلوبنا تهواها حبيبي قلوبنا تهواها fa baxit xoolal góor gi ak neex wax naa Mouhamad nekk ci terrain bi dugal ñëpp mën nañ ko waaw waaw toog ci baam bi toj kër gi moom la daa bax Malick def laa ilaaha illallaah waaye soxna Ayda ma waxaat ko waaw bàyyi sëñ bay am waaw bàyyi na Aydes waaw bàyyi na Fass waaw bàyyi soxna Umu waaw bàyyi nee naa ko xam nañ jour bi na ci terrain bi dugal bi waaw waaw waaye bi toog ci baa ngi dugal bii da baax Malick xam nga lu ko waral oh. bu tàngee bi jàq ku nekk jaaxle dañuy déglu da baax Malick jëfi nekk alors <laughs> malaadana maam ne fa baaxin baaxin saam benn benn fa baaxin baaxin fi ngeen ko jàpp baax ay ay ay ay saam ñoom nen ne ñoom am ne ñoom sul lay fitna su leen ci baaxin baaxin yaa siidi wa malaadana sama maam fa baaxin baaxin baaxin baaxin xam nga mooy lan hmm. arab hmm. bu baaxee ba mu baax ba baax a baax. wala mu neex. ba neex a neex. xamatul nu mu koy qualifié. danaan baxin. mooy point final. baxin mooy bu dee neex na c'est trop neex. sa baxin. bu dee baax na danaan trop baax. bu dee nice. bu dee nice. bu nekkee c'est trop nice mu ni fa baxin baxin. fa baxin baxin fa baxin askay baxin askay yaa sidi xam nga ko wax loolu caatu Seydou Hadj Malick Cheikh Mouhamadou Habib Sy bàyyi sëñ maam Ousmane bàyyi soxna Ndey Safi bu sëñ Maodo Sy nee na xolal fa baxin bàyyi sëñ Moulay Sy baxin askay yaa sidi ci sama sang bi kooku mooy turandoo Abdou Aziz Gueye wa manaazana suñu weeruwaay man kaana xaatima asri wal bari nee na xoolal xaatim lam daan mën a maye maye bu dajeg da baax Malick xam ne da gis na ko ko gën a maye ajaban woo naa kéemtaan woo naa kéemtaan saam bi bidaat Malick di doge di Seydul Xaaji Malick wa imaamina mooy suñu njiit niamal fata xoolal xoolal saam niama filaani غير متصرفين كالنعمة وبئس رافع اسمين مقارني ال كالنعمة اقبل كرما نعمة باخنا لول لول لول لول لول الفتح ده باخ معاك من حاز كل فخير من ده باخ ميغا خمني حاز لقنا كل فخير لي بولي بوكري waaye pourquoi pas. wante walidu. waaye lum laa. lim laa. lu tee du ko doon. lim laa. pourquoi pas. lim laa. why not. lim laa. ma ne why not da baax maa leen di ko baax. pourquoi pas Dabax du ko doon lu tax Dabax du nekk li mu doon ah, lu tax Dabax du nekk borom karanta si maa doon la bopp xoolal wa anta ta Dabax Malick walidu Malick ñooy doom Seydi Hadji Malick Zaka kooku le mooy kan wa umdatul axyaar nee na ñu baax bañ ñu baax nañ ñu tedd bañ ñu tedd nañ Dabax Malick mooy seen dugg raw jàpp rëcc def leen naa la wilaayata diflini alal wilayata aywa aywa sopp Serigne Abdou defal ni sa loxo ci wilayata ku bëgg baayu Serigne Maodo si sa loxo jàkka ci wilayata sëñ Habib Si sañ habibu mam se feetu ñang nee na daa baax mam se feetu ñang mu seydul haaji malik naa la am na daa baax lu ma na xaritu yàlla mooy kii jaamu yàlla yàlla na nga koy jaam bam la waayam waaye yàlla mooy wulu yàlla waaye mu daa baax malik am na wilaya nekk xaritu yàlla am nag texe nee na am na ragal yàlla. bi amaanatin ci kóolute. sëñ Maodo si nee na nga promenade. sa jamono. bu nit yàlla yi bëggee promener. jardin. am am garab yu naay si. ñu koy bëgg di ko enjoy. nee na Dabakh Malick da tudd ci jamono. yaa sayda saadaat. yaay sangu sang yi. nusata asrihi. yow mi nga xamante ni bii yaay sa promenade su jamono. umitu rijaalillahi. nee na nit yàlla jamono yaa leen di tëbbu. fil yawmi wal xadi. nee na tey ak ëllëg Dabakh Malick affaire bi yow la. nee na maa ngi koy tëggal fi qaalati shi'ri sayli ci ay mooni way koy way la aliya aadabin nee ay wurus yoo xam ne samat al zabarjabi moo gën a or moo gën a kawe jamaa ubayiukum fillah nee na baay booy maa ngi jaayanteeg yow ci yàlla bayata ahmadi nee na baayanteeg ahmadu wa ashaabihi al abrari ak saaba bi ñoom anjumi muqtabi ñi nga xamante ñooy biddi wi ñu doon yof nee na xam nga lu tax bàyyi ma lay tàgg tàgguma la ndax sama yaay sama baay déedéet dama lay tagg ndax ma la taggee baax fii baax fële defaru fii defaru fële bég fi bég fële moo tax ma lay tagg yow sama baay nee na samay way lu mu neex neex fii ak boole mu ne si lu neex. wa tazdaadu albaabi bi asmaa sax li ma koy tëgg li ma lay tudd bàyyi mooy tax mu neex. yaa Cheikhana yaa Ahmada. Ousmane yi bokkul ak yaa nañ la Ousmane alladi xalamal wala bi asat شيخ عالم مطارع قال أنام إلى الهدى دعنا لشيخ تقي موضوع سام دي دي دا غاو دي سام دا غاو دي دا غاو دي أبيان سام اللقم سام دا غاو وكم اعتلى خمران شيخ وللشيخ آيات إذا لم تكن له فما هو إلا في ليا للهواء yasri ida lam yakun il ilmu ladayhi bi zahirin wala batin fadrib bihi lujajal bahri cheikhun fi taalimi cheikhun fi tarbiya cheikhun fi tarqiya cheikhun fi tasfiya cheikhun fi tahlil masail Seydi Haaji Malik Mam Maodo Mam Maodo Mam Maodo Mam Maodo Serigne la xam nga ki la war a yóbbu ci yàlla bu la gën a ragal yàlla du sa sëriñ sëñ Mor Alaaji Mansour nee na cheikhul sëriñ la bu ragal yàlla xam nga yenn saa yi nga am waay ba yàgg nga xam ni sa waaji du waaja waaye ko xam nañ laa xam ak waaji mënatoo ñàkk ne waaji sama waay la waaye Alaaji Mansour borom ñaari kaala yi góor ga demoon 44 jàkkaarloog njool màkk sëriñu bay alañ bay dëggan moo jàkkaarloog bay alañ bay dëggan ànd ak moom ginnaaw julli gee waa Tiwaawan di bëgg a tëdd mu ne ko alaaji jëlal kaale jëlal jëlal si jaada bi mu jël si jaada bi ànd ak moom ba ci buntu sa giir alaaji mbay taxaw sa baay ca bunt ba alaaji Mansour dugg ba yàgg jég alaaji mbay di yëngu mu ñëw ni ko alaaji lu xew mu ne ko damaa toog ba yàgg am ñaar ñu ma fekk mu ko alaaji ma lay wane yonent bi di la wan Cheikh na Tidiane alaaji nga ma tax sama yaakaar alaaji mbay fi mu toog gis na ñaari délégation ñëw Seydina Mouhamad ak Cheikh na Tidiane alaaji Mansour ni ko kooku ànd ak kan la Cheikh na Tidiane la ak Rasulillah kii may wax nag ma wax lii bàyyam seen mooy bàyyi sëñ Babacar Si Mansour bàyyi soxna Fatou maami sëriñ Habib. Cheikhun. sëriñ la. araftul wara sharqan. Ah, ah. wa gharban. benn benn. wala. bilaay bilaay bilaay. kamifli matal Mansour. fi zahiri wara. والورى والورى والورى سام عرفت الورى عرفت الورى شرق ويكو ويكو ويكو ويكو كلمة المنصور لسائر الورى إذا صار

Arab ndëpp la. xoolal bu leen ko di wax. xoolal bala may dugg ci njaag. njaag gu ma. Saam. borom ñaari kaare yi El Hadj Mansour. waaw waaw waaw. xam nga mooy kan. Ah. moo doon ki nga xam ni. Ah. bu bàyyam Seydul Xaaji Maalik waree jàngal jinne yi. Uh-huh. am ngant munte jàngali jinne yi. Uh-huh. la daan yabal mu jàngal jinne yi. ku inspecteur tarixa bi. Seydul بها يعترها سام بي سام دانك أتانا سليل عجب كرم المنصور سام سام سام سام الله منصور شيخ أنا سريل تقي ورقل يالله nee na Maodo doo ko xool ba yàgg nga ni Maodo Maodo mën naa jàngale sax waaye il n'est pas élégant never hmm. doo ne Maodo sax mën naa jàngale il est éloquent mais Maodo il n'est pas civilisé. never da nga naan Maodo mën naa jàng mën naa jàngale am na éloquence civilisé na am na pédagogie góor gi mu ni laa yudannu biribatin ragal na yàlla xam na mën na da la yóbbu ba nga yegg doo yàgg duñ la yàqal duñ la yàqale ko mooy seen xaaju maani nee na mu aani ku yàlla teg la ala istiqaamati fastaqim kama umirta nee na sharia bu doon jëm si la sant maa la wax loolu teewal la dëkk waaw mooy doom mam faa wàddu wele neen xaqiqa ba doon jëm ah. teewal la dëkk maa la wax loolu si la sant mooy bàyyi sëñ Babacar Si nee na innahu li xew moom Seydou Hadji Malick day gindi taalibe bi ba ma yegg ci boromam mooy borom ma xam yu kawe ya mooy wéeruwaay war xam-xam ya dafi nekk la la nee na kawe nee na kawe bu doon bu doon bu doon nit mbaxana ma ca kaw mooy seen a Maalik nee na ngëneel bu doon kel alxaaji Maalik la tudd nee na mooy kel bu sëq ku tàng ba dugg ci Maodo dootoo yëg tàng. nee na boo amee El Hadj Malick. boo ànd ak Maodo Malick. doo tiit doo gëlëm doo réer doo réer. nee na Seydou Hadj Malick boo ànd ak moom da ngay baax. waaye ku ànd ak moom baax fii baax fële sax. nee na wajur bi kam maa kunta an bu muxbiran wa adiban li qadri mukasiran taqulu kam maalil afaadu ruyet bu kam imaa imalatu awrij bëri na lool sa am lu bëri. bëri na jaam bu la jox boppam nga yóbbu ko ba mu yegg ci yàlla. za visa li mu faraj muzakkir ashir bi ji waji tita ala du shach shach mu ne za kële may joxoñ kan la borom joxoñ bële kan la muy sir xaaji Maalik ibnu Usmaan alladi nee na mooy doomu maam alaaji maam Usmaan wasilatan in xayru haalan yu'lama wa an yuqarrara wa an yufaqama mawsulu asma alladi ursallati wal yaa ida ma shuddida la tusbiti wal yaa adumma wa shiran mushaddida wa atifu kallati aw lasdadada bal ma yalihi aw li alama wa nuunu in tushar fala mana mu ne mu ne alladi góor gu ca diggee kan la saa ku baax ñi baax nee nañu moo baax cheikhul masaayix nee na mooy sëriñu sëriñ si man baul irfan nee na xam yàlla bu doon robinet alaaji maa ngi la tudd zakam na ousmane alladi eh, mooy doom maam ousmane ji nga xam ni saadal mara moom moo ci mbindee fi jamonoom bi siyaasatin xoolal saam maa ngi ñëw nag ñu commencé gàmmu gi man la jot xolal xolal xolal des na minute trente cinq ah, des na une sam sam sam Maodo Ndiak sam sam bàyyil sama ndëpp la sam bàyyil Ndiak maa ngi euh, ndeysaan nu mu tuddati sax euh, maa ngi maa ngi réer euh, taalibe Serigne Fallou ba soppe sëriñ Fallou Euh, taalibe borom makaarimal axlaax mu ngi leen di bëggee di leen kontaane bu baax a baax a baax saam dafa am lu ma bëgg a laaj mu yëm ma lool saam fa njool màkk gane àdduna waaw waaw lu tax bu gàmmu jotee sa xel dem Tiwaawan boo demoon màkk bàyyi mbay peex nee na doo fa fekk kenn lu waral loolu oustaz loolu lañ bëgg a xam waaw kay xam nga maa sama logique ba léegi saam toog teel na saam toog ceen dëggal li saam demal ba toog doo ko wax saam loo def nga ni saam loo wax nga ne saam nga ni dangay bi mënut a yàgg mani xam nga kuy toog doo kuy toog bu doo toog. dama leen di kii rek dama leen di boobu ba léegi dama leen di envoyé rappel moi rek. Saam. Saam. Sulay. gàmmu gi commencé gul. damaa nekkoon ci Maodo. ba yàgg waa kër Maodo daal Maodo dañuy wax Maodo mooy kan. léegi nag damaa bëgguñu ñu nag ak waa kër Njool Faama. ñu waxuñu kuy Njool Màkk. déggoo ma de. saa waaw. dañuy ànd waa kër Njool Faama. Ah. ñu wax ñu kuy Njool Makka. laa ilaha illallah. waaye am na lu neex. njoolu njool fuutaay wax ci bindu njool màkk njool faam njoolum alxaaji Mansour si Jamil di laaj di laaj njoo njoolum déglu laa ilaha illallah njoolu njool fuuta waaw mooy wax ci njool màkk waaw waaw ci mbindum njool faama laa ilaha illallah njoolu sëñ Moussa Mansour si Jamil waaw kay di laaj njoolu njool Fuuta waaw muy wax ci maami Jamil waaw wax ci njool Màkka yow am nga wéef oustaz nga wéef oustaz application wéef am nga ko nga man village mooy laaj laaj mu yow yow yow laaj ko waa rési boo noppee <laughs> rek saam da ngaa a toog waaye classement bi pareegul dañuy dugg xam nga Maodo bu waxoon ci njool màkka rek jàpp njaamuram dafay mel ni dafa xew la te kenn dawtalu te gis nga yenn saa yi nga am xew ci biir ndawtal yi ngay xam foo tollu ci nit ñi laajal waaja waa ji bàyyam dafa faatu Mohamed waa ji dem leb nagu cinq cent mille ku bàyyam faatu waaw teg ko ci ndawtal yi ci ci jaxal ah. yàlla nattu ko ndekete ba muy jëflanteeg nit ñi jiwu leen lu baax. Hmm. muy compter di compter ba timis jot nit ñi commencé njibbi quatre-vingt-dix mille la am war a fay cinq cent ci njaal mi. ci jaxal bi. dese na neuf cent. mu toog ba yàgg jooy quatre cent. ñu ne ko waaye looy jooy sa baay mu ni déedéet ñu ne ko looy jooy mu ni dama perte ci dëj bi. <laughs> ñu ne ko looy jooy mu ni dëj bi dama cee perte. Ah. xam nga lu ko yóbbee. Hmm. ba mu jëflanteeg nit ñi jëflantewul ak ñoom ci mbaax. Hmm. nit ñi am nañ ni ñi am nañ fulla hmm. am nañu fayda loo leen lebal ñu fay la ko waaye Maodo li mu lebal njoon màkka nan la ko ko waa waa këram fayee noonu ko ko fayee xoolal li waa moodo wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi loolu la ñuy wax gaa yi a wax Maodo li mu wax njool màkka sam fooy dugg fooy dugg ku wax loolu ku wax loolu sayyidul qawmi nee na déet saam damaa bëgg nga commencé ci kaw sëñ Babacar Si sëriñ Babacar nee na yaati mahabtukumu sëñ Babacar si nee na bi ma déparé ci waawan jëm ci njool Màkka fa sama baay jaaroon laa jaar san fan la dem yaati mahabtukumu eh nee na borom bu ne kaare bi ca péeru ci kanamu Seydina Muhammad fan la dem sam yaati mahabtu rasulillah nee na eh, eh, eh maa dem ci Seydina Muhammad mi nga xamante ni léppam leer la moom rasulillah yi yaati al-amin alladi eh sam góor gi nee na maa ngi dem ci Seydina Muhammad ma nga xam ni sëñ Babacar ne bu woon ñool makk yàlla du wàcc benn aaya nee na hadis du am kenn du bind kenn du dicté nee na bu woon ñool makk bàyyi roqe ak dina boobu umu kalsum yaakaar jàmm ñi Seydina Muhammad ma ca makkatal mukarram bu woon ak moom yàlla du bind kenn nee na boo bëgg xam Seydina Muhammad mooy ki demoon école tey jàngal professeur yi góor gi nee na ci bayaan wa baala lawla galiban xasbul xabar bu woon ñool makk du feeñ sa nee na aaya du am hadis du am falaa katbun kenn du bind kenn du dicté yàlla bu woon ñool makk yàlla du bind kenn siru sarirati nee na mooy mbootu mboot yi nuurul xalq mooy leeru mbindeef yi xalidu mooy aji woo man jaam ñi xayu xiyaar moo gën ci ñi moom ñool makk xuraysh la dëkk moom ñool makk da maa mooy géeju maa mulaan nga mooy tànneefu yàlla bi siru zaat mooy mbootu jëm yàlla ji mooy tànneefu yàlla bi mooy seet mooy mooy mbootu nekk ci wa jawdul juudi nee na taw li muy taw taw di tabe tabe ñool makk ko gën a tabe nee na ñool makk mooy xéwal yu màgg yi. ignaaw kullil wara. xoolal. ignaaw loo waaye am lu mu bëri bari ba nga koy yéem mi ngi jóge ci njol màkk. min talihimatihi. nga ne bu mu la yéem njol màkk tawagul daa wiy suy sel mu inondé sëñ Babacar ne bu tawoon nu muy. fa kayfa diibatu alil barri hatla. sëñ Babacar ne yow mi mu ngi suy sel nga inondé. ñu génne na sa kër nga dem wuti location bu tawoon nooy def nee li nga gis gars yi am ko ñool joxee joxeegul dafay envoyé message bu keroog mayee ñu gars yi xam ne ñëpp ay inondé moom rasul nee na bu nekkee tab ak ak jamonoy méttit nee dafa jamono jamono ji feeñ na xolal sëñ Babacar nee na bu jamono bekkoore ñëpp xiif kenn amul loo sol kenn amul loo lekk kenn loo naan bu Seydina na ñëwee bàyyi roq yaag dina bëgg Umu Kalsum yaakaaru jàmm ñëw xiyaamati béykar Seydi Haaji Maalik borom barrière ba ca bëri mun a war a bu ñëwee ñëpp am nañu soxla moom Seydina nee na moom mooy taw na moom mooy doj bu yëkkati wuy. lahu fal kafu wak faa. nee na ñool makka day joxe poos yi di joxe loxo bi di joxe làmmiñ bi di joxe cër yi di joxe gémmiñ gi di joxe ñool makka léppam joxe. wa ki wax loolu kan la. Seydou xaw mi moo nii. yéen a may dégg sëñ Babacar génn na ci géew bi. koo rugg borom ñaari kaala ya. waaw lu tax bal xaw mi. xam nga luy loolu. Ah. bal xaw mi mooy abul xaw mi mooy moo ajibul xaw mi ñu daga ko ni bal xaw mi. Mansour bi ayami. Alaaji Mansour moo départ Sénégal Sam. départ Sénégal. tàggu sëriñ Babacar Si tàggatoog ay rakam ma wàcc Madinatu Munawwara jàkkaarloog Seydina Muhammad wa min bari xayri rusul atlu kitaabiya alaaji Mansour ne saam góor gi nee na ma dem Màkka dem Madinatu Munawwara fekk gaa yi buuxante ku nekk ji bëgg a ziar Seydina Muhammad alaaji Mansour nee na ma dànd leen rek toog leen xool ba yàgg ma ñëw ci ñaari kaala ya summi samay dàll su ku ci réew du njoor màkk durub suuf njoor màkk kañ la loolu alaaji Mansour mu ne yor-yor altine ban année mu ne 44 mooy joobe njoor màkk di ko joobe njoor màkk di ko joobe ba pavillon bi ubbeeku ma jàkkaarloo rasulilaay falammaa danoonaa min sanal badri wan jalaa lana situru xataa daala min wujdi maa biyaa saam koo la alaaji Mansour ngi jàkkaarloo njal màkk naan kii mooy yonent bi alaaji ma nee na bi ñuy tagg yàlla di tagg njal màkk kii moo at mi moo tax yàlla tagg ko moom rasulillah yi yàlla ni ko muhammadun rasulullahi walladina maahu ashidda ala alkuffari rahamaau baynahum taraahum rukaan sujadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwanan simahum fi wujuhi min asari sujud dalika masalum fi tawrati wa masalum fi linjili kadani ahraja shada faadarahu fasalada fastawa ala suqihi yujibu duraa yadilu lkufar waada allahu alladina amanu wa amilu salihati minhum magfira wa ajran azima sam loo wax nabiir yonent la sama yëkkatiku na ah. fawqa sima kay nii ba tiim étoile polaire saameen ak yëkkatiku wa baxru kafaamil nee na ñool màkk ñool màkk sa géej gi nee na baag yi baag yi lu ñuy bëri bëri ci géej njool màkk taxuñu ko nax nga olof nee na ki root ci suba gi root ci ngoon bàkk ya du ñu dajey laale boo rootee suba am ndox boo rootee ngoon am ndox ndax njol màkka mooy ndox moo lay nàndal moo lay sang moo lay fóotal sam nga ne anaxtu jimaal shawqi alaa soo nee na yësal naa sama gilee mu eh, ñëw naa nag ci sama turandoo Seydina Muhammad alaa jëman suur looy wut bi fadlika maa yabdu ñu doon màkka di ñaan yàlla mu far bàkkaar yi jéggal ñu suñu bàkkaar ku demagul màkka yàlla na nga dem màkka yàlla na nga wër kaaba ga ñu njëpp àndandoo labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku képp ku demagul màkka yàlla na fa yàlla yóbbu sam loo wax alaaji Mansoor ne li gën a tuuti ci melokaanu njool màkka saam حريحة حبه نانا لوني مانا دكري دكري مونتا دكري نانا نيول ما كملو حريحة قحنية تعص الخوافية نانا لو مانا مانا تاج نانا لو مانا مانا وي مانا وان نيول ما كني ملون xam nga ne. waasil dawaaman madan nuxbati Haashimi. waaye yéen Maodo jaaxalul leen ba léegi. ñi ngi jëm ci njool Màkka waxaguma li Maodo wax. maa ngi waa kër Maodo wax Seydina Muhammad wa asil dawaman madhan nuxbati haashimin xam nga classement bi damaa jox sëñ Babacar mu génn ñu jox alaaji Mansour mu génn ñu jox abax maalik abax maalik lu mu wax wa asil dawaman mada nuxbati haashimin dabax maalik nee na booy tagg boo amee jot boo nekkee sa kër boo weetee boo wëttalikoo boo xiifee wala nga mar del tagg rasulillahi tanaalu alladi tabgi min alfatxi wal yusri dabax maalik nee boo bëggee am ubbeeku adduna am ubbeeku alaxira yàlla gërëm la radiyallahu anhu wa radu anhu dalika liman xasiya rabba boo ci bëggee egg del tagg rasulillahi eh sa ta sa jot dee def si njor maak maa dumta kaadiran nee na koy mën del tagg rasulillahi famat rasulillahi min aadami zuxri daa baax Malick nee na sama trésor bi gën a fort mooy tagg rasulillahi bii naa la nee na am mi ko am ci barke neena Seydina Muhammad ku bëgg njool Makka bëgg yàlla may la defaru fii defaru fëre baax fii baax fëre del tagg rasulillahi tabax Malik ne ñi nga mën a am ci njool Makka mënuñu ko misaal tabax Malik ne tagg rasulillahi ahmada xuddati e eh, loolu mooy sama prépare yowm alxiyamati tabax Malik ne ni ma bëggee sama sama xol nañ cee gravé bëgg rasulillahi yow njool Makka mi baluwaay yi xayril wara njool màkka ku nangu yaa gën ku nangul yaa ko gën njool màkka yaa mujj ñëw njool màkka yow la njëkk bind ku nangu yaa gën